wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammadin amin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waa Daaru Minane TV noo ngi leen di nuyu di leen dalal di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi a Cheikh Mouhamadou Mountakha yal na yàlla dolli ko sàmm te yokk aw fanam mu mottali ay sumbam ba sumbaat yeneen ànd koog murit yëpp ak taalibe yi noo ngi sant yàlla ci boole gi ñu boole ci ñu wax ci soxna su tedd si di saydatuna Maryam jaaratullaahi kuñ ne nag waxal ci soxna Maryama jaaratullaahi te waxuñu la ci ban wet ngay waxe doo xam ndax ca juddu bu rëy ba ca ngay waxe askan wu tedd wa ba nga xam ne boo ko toppee càllala ga day dem ba ca sayyidatuna Fatima bintu rasul doo xam sax booy wax ci soxna jaara ndax dangay waxe ca wetu xam-xam bu bari ba juddoo ci këru xam ci ñaari wetam yépp doo xam sax booy wax ci soxna jaara ndax dangay wax ca melo ya ak jikko yu rafet ya wala ndax dangay wax ca xam-xam bu bari ba wala ndax dangay wax ca meññatam bu tedd wa maanaam njabootam gu baax gi nga xam ne yàlla xéewale nag ko manees naa wax ci wet goo xam ne nii bëriwuñ luñ ciy wax muy soxna jaara borom xam-xam la woon alima la woon faqiha la woon sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha buñ koy tagg wala ñuy wax ci moom am na ci borom xam yi ñoo xam ne dañuy ñëw ca côté ba nga xam ne ca la spécialiste woon lu jëm ci wàllu ilmul hadis bokk ci juróom yi nga xam ne ñoo ëpp luñ soloo hadis ci yonente bi am ñoo xam ne bu ñu wax ci moom kenam ànde woon ak rasulullahi ci ànd ba rafet ba la waaye soxna jaare mi borom xam-xam la woon doy na sëkk ñu ne borom xam-xam la woon luy firnde ji mooy wattu na téere bi yàlla bi ba jàng mboolem téere yi nga xam ne moom lañuy soxla woo ci njàngum majalis mu jëm ci wàllu fiq wala tawxid wala tasawuf nga xam ne ku teet yooyu mat nga imam dëgg soxna si jaar na ci jaar-jaar yooyu ci xam-xam te li ëpp ci xam-xamam génnut këram maa ngi ko jàngi ca ëttub këram di waajuram bu tedd woowu di soxna mam astawaalo yàlla na yàlla dolli ko ngërëm soxna jaara li sëñ Basiiru wax ci moom rek daanaka mënees na cee faram-fàcce wax ci fii ba suba sëñ Basiiru nee na sayyidatuna Maryam jaaratullaahi day ku sàmm la woon ku yiw la woon ku bari woonu julli guddi la woon buñ ne ku bari woonu julli la nag jëlale nañ fonk salawaatul xams muy julli juróom waaye jéggatoon na ko ba nga xam ne julli yi nga xam ne du farata ci moom muy julli guddi ak li muy yore këram lépp la ci aju ku daa taxaw julli guddi yi la woon sëñ Basiiru nee na soxna si moo jàngal sëñ bu mag bi julli guddi ndax moo ko njëkk a toqal ci noppam ne ko bokk na ci aaday gaañu baax ñi mooy dañ daa julli guddi nee nañ bi sëriñ bi déggee loolu booba guddi daara sax ci zaahir bala ca la tàmbale di taxaw guddi ba bët set loolu soxna jaara moo ko man des naa wax ci ay melawam buñ jëloon tur njabootuk cheikhul xadim gi nga xam ne ay sëtam lañ juróomi melo yi wala juróomi tur yi yëpp ma nga ci jëmmam ju tedd ji soxna jaara muslima la soxna jaara mu'mina la soxna jaara maymuna la soxna jaara taahira la soxna jaara maskura la soxna jaara ab jullit dëgg mooy mariama buso boo xam ne mu ngi woon ci ay circonstances yu métti ci jamono ju naqari teewul mu fexe ba marqué histoire am marqué jamonoom ci nu ko marqué moo ne day lislaam yàgg na lool bari na nu ñuy waxal jigéen waaye ku am jom la te rëy loolu moo ko may lii doy na sëkk rek ci ne ku barkeelu dundam la mooy ginnaawam fi mu jaaroon ak lim jaaroon lépp yàlla barkel na ko xamuñu ci histoire daara ju tol ni poroxaan xaj na daaray jigéen ju tol noonu ci nombre bari na ci àddina bi waaye bu mel noonu ci ay turandoo ñoom ñëpp ñu bokki tur di jàng gratuitement kenn fayut lim yooyu di fa mokkale alquran ca daara ja ak fa mu tëdd matut cinq cent loolu wax dëgg yàlla xamuñu ko ci histoire l'islam loolu barkeelu dundam la barkeelu jaar-jaaram la te loolu lay sax ba ilaa yawmi diin loolu rekk ñun ñu fekkewul jamonoom manees naa rafet njort bu baax ki ne ki tëdd fii ci dëkk bii ki jaar ci dëkk bii nii borom turandoo yu bari yii nii waajuru ko tedd kii nii ku yàlla nangub liggéeyam la ci lii ñu gis ca poroxaan ak ki jamono doy na sëkk ci firnde soxna jaara dund gi ci saaxir lu gàtt la daa nuroog turandoo lu bari muy sayyidatuna Maryam 33 ans rek la dund bu dundoon ay at yu bari yaakaar naa bari nañu dund at yu mata fukkute atam yii nii te ñu baax lañ woon de waaye amuñu lu tol ne li soxna jaara am ci ay manaqib aki i fadail ci ngëneel ak i baax-baax 33 ans yooyu ñu bari ci jamonoy tey ji dañuy jàpp ne buñ gisee dessin bi dañuy jàpp ne mag mu màggat mu fi jaarul la koo xam ne ci digg dooleem ci digg kër liggéeyu këram la liggéey lim liggéey ci at yooyu ci la ko liggéey boo demee xuru Mbàkke da xam ne fii nii démb neexutoon ci nim bindoo ci wàllu maanaam géographie nim dundoo nim bindoo ak ca jamono jooju boo xamee taarix da nga xam ne fii fu naqari la woon foofu la liggéey lam liggéey sëñ Maam Mor Anta Sali gërëm ko ñam bokkaloon kër googu ñoom ñëpp ñu gërëm ko doy na sëkk ne gërëm nañ ko muy seenu njaboot ñoom ñëpp ñam bokkaloon kër sëñ Maam Mor Anta Sali ñoom ñëpp dañoo nangul sëriñ bi ànd ak moom xooluñu ci adiya xooluñu si askan wa waaye dañ koo jox seen bopp ni nga xamee ne jàmbur ya ca yeneen dëkk wala yeneen askan ñëw nañ jox ko seen bopp mu def ca ñoom lam def ca ñoom ñoom ñii nga xam ne ñoo bokk ak moom suñ maam Mor Anta noonu lañ def ak sëñ Cheikhul Khadim doy na sëkk soxna jaara mooy ku la yàlla jox nga indi ko ci jamono muy loo jur ci waxin wuñ mën a dégg mu nekk boroomu cër di wàlliyu ko ci sëñ maam jaara ba ci Cheikh Mouhamadou Habibullahi mi nga xam ne ñu bari xamuñu ko ca denc ko ca xuru mbàkke loolu doy na sëkk doy na sëkk muy yow yaay kan mooy sa waajur wu jigéen dund na téeméeri at ak lu teg boo xam ne nii musta def wala ñu xam ko ci lu dul jàng ak jàngale nga yaroo ci kippaar googu dem ci nitu yàlla ku mag ku ñaan sëñ Mamour Anta Sali koo xam ne ci jàng ak jàngale lay yëngu nga liggéey fa liggéey bu mel nii mbokk yi soxna jaara ñun buñ koy waxtaanee léeg-léeg dañuy waxtaanee ca baax ak juddu gaag lu mel noonu waaye rëy bët gi nga xam ne jàpp na ne lépp luy baax lu amoon démb jomb ko mu liggéey ba am lu mel noonu loolu képp kuy jigéen war ngaa roy ci moom ci loolu képp ku ne ci kër di sëy war ngaa roy ci soxna jaara ci topp ndigalu borom këram war nees naa roy ci soxna jaara ci ne jigéen kat ñu bari dañuy bàyyiliku ci xam-xam xam-xamu diine ñu bari dañuy bàyyiliku ci baax dañoo jàpp ne daal mënee suta nekk wàlliyu jigéen dana nekk wàlliyu dana nekk faqiiha dana nekk aalima jigéen dana nekk borom xam-xam dana géeju ci xam-xamu fiq jigéen lenn rek lañ wax ne moom la mënta doon ci lislaam muy ab yonent waaye dana yorub cër nekk wali ni ko góor di nekk ca loolu doy na sëkk ci soxna jaara ak sëtam yi kon jigéen ñi waruñoo bàyyili ko ci xam-xamu diine ca loolu daaray poroxaan wane na ko jigéen waruñoo bàyyile ko ci melo yu baax ci ne danañ liggéeyal seenu askan wala seen seen gox walla seen dëkk ba taarix di leen tudd bu ëllëgee loolu soxna jaara waree na lu mel noonu ci li ci gën a metti mooy ci jamono yu méttee méttee métti yoo xam ne dund gi metti woon na mooy jafe woon na ca jamono jooju la liggéey lu mel ne lim liggéey loolu nag jigéen ñi léegi war nañ ko ci roy bu baax a baax a baax soxna jaara du soxna jaara muridisme rek waaye soxna jaaram addina bi la soxna jaaram ku bëgg lu baax la manees na koo jël comme royukaay soxna jaara daal mooy koo xam ne ku rafet bitti la ak biir ku rafet démb la ak tey ku yàlla gërëm la ku ginnaawam barkeel la moom sayyidatuna Mariama jaaratullaahi kon mbokk yi jëmm ju tedd ju baax jii nii yàlla nañu ko yàlla fayal royukaay la ku ñuy war di waxtaane la waxtu wu ne ci fànn yu bari yi nga xam ne tudd naa ko ci yépp ñu mënees na koo waxtaane ci moom yal na ñu ko yàlla fayal yal na yàlla barkeel sëtam yi yal na yàlla barkel turandoom yi yal na yàlla barkeel mboolem koo xam ne nii ëmbal nga ko cofeel moom sayyidatuna Maryam jaaratullahi radiyallahu taala anha wa nafaxana bi barakaatiha fi dunia wal axirati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu